salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum champion d'Afrique tey nag dama leen indil sama techno Spark 8C lu neex. Spark 8C bi nag mooy Spark bu gën a gën gën a yomb ci marché bi. écran bi nag mi ngi toll ci 6,6 pouces batterie bu dëgër këcc mi ngi toll ci 5000 mAh waaye yéen lii neexul mémoire bi nag. kenn du leen ko nettali sama gaay mi ngi toll si 64 giga loolu mooy fotowul selfil tiktokal defal lu la neex te du fees ram bi nag mi ngi toll si 4 giga xanaa de lii moo gaaw Spark 8C bi nag ñaari caméra la am si ginnaaw ak 13 mégapixels mooy Spark bi gën a yomb ci marché bi dem leen ngeen jëndi ko ci suñu boutique partenaire yëpp ak Spark 8C bi na xol yëpp feex jàppal ma ginte te bu ko bàyyil boo bëggee sa waay da nga koy sasal déedéet déedéet oh, oh, oh. ah dëgg am konk ah, man ngeen def concurrence ilaha illallah man a per waaw <laughs> sa xaritu démb ak barki démb <laughs> surtout bu tufaan te jama borom ku ko yàgg kuy ca daw bi xam nga damaa bàyyi taaxuraan waaye damaa gis loo xam ni yow doo nga ma ci doy dimbali ma nga ñëw booy ñëw indil haut-parleur indil bool cool mbëng-mbëng tung ne gorom babas tama ju ndaw loo am indil indaalil cu loo am indil dama non damaa ne ci defante bu metti te yaa ci doy xam nga man sama bopp naa sama bopp waaye dama naa waajaa faal yaa ngay ñëw jërëjëf. <laughs> ay maay booy. <laughs> Ah! koñ bi. Eh, barki de ma xoolal imaam ma fi ñëw. Eh! non ma père ma ne ko naa mu ne ma mais ko maa koy am na laa may. fii fii mooy fii mooy fii mooy père. ay sama distance. voilà xoolal ah, dikkal. seeral ma defal ma loo njëkk a commandé. booy defal ma pomme de terre 200. waaw. libaru mburu. waaw defal omelette. ak lan. Euh, def ci mayonnaise. <laughs> ay jàmbeer. looy laaj. li mu bëgg. li ma jël lay jël. li jël li nga jël lay jël. xoolal yaa fi ne. 2300. 2300 def ko ci kaye bi baaye. kaye ba. suba ma jox suba xoolal dañoo am calcio bu tàng jër. Eh, eh, eh, xool ma wax ak man xoolal. si gi fay ba ba ba kii. na ku jóge màkkanu dàqalu di rek sa muuraay boo fonto waayo yow sax ñal ngal jël teel teel yëpp pour man danga daan man xaalis baa ngi nii ànd ak mel nii naan maa boo si demal ci def ma ni kaay kaay bi fees na. waaw ma defu ma ni defu ma ci. naan ma kay lebalu ma la. Guèye. ma ne ko naam. waaw mu ni ma am rival bu mag. Mm-hmm. te lii baal. Mhm. defante la laaj. ñam ñam rek mënu naan. defante bi nag. Mhm. kii moo koy fekk bee ñaar tous les mhm. ah. day ñëw. di ambiance defante ba mu saf. Oh. njëriñ gerte day saf moo ñaar lii neex lii na neex. lii di neexul. Ah. da bokkul. wax bari mani xoolal wuyu ma fi dëgg da nga waxoo dëgg da nga doon lépp man maa la ko may am jëlal mani jaay jëlal te noppi waaw jëlal jëlal góor loolu ka eh. jël jox ko non jox ko pour moom la yaa ngi ko jox ah. yaa ngi ko jox ah. waaw waaw ma non non gérer sa pool bi benn setul soo pompiteer yi xam na ah xoolal fi. nga sañ ah? koo wax yow eh, eh, eh oh. sax tane na parce que changé na. man bu ma waxuloon ngaa wax. bu ma waxul da ngaa war a wax. nga jël bu nit di ngëm mi sa nopp mel na ku mer man bu ma fontolaa war ngaa tim sama njaay mi di ko sikkal loolu mooy la. fii daal ku mer clamer yàlla yow. boo bëggee doxaan doxaanal sam doxaan te bàyyi sama njaay. fii kan lañ fi doxaan ta moo fi nekk ñu doxaan fii kenn dafay nekk ñu doxaan. ba nga ñàkkee sax juddoo ko. Eh. kii daa agsi rek nga perte. ma fi ki jigéen ñi xaalis la ñuy wër. xool ma fi eh. yow waroo wax de yow yaa ki waroon noppi yow anima woo fii di ma toroxal waxal yow yaa gisoo gargote bi na ci biir. set na sell na neex na te li muy jaay baax na. nga xool dëgg lembuut lembuut seen tur de la saal. yàkkatu de da yàkkatu grand xool mburu grand yow eh, eh, ma wayu. ñu koy wane dinaa ko wax mbir mi dañu koo dañu koy wane. liggéeyuma maa ngi sama jàpp gën moo gën. ah liggéeyuma liggéey looy liggéey. looy liggéey. grand barki rasulullah tey ngay ah. faale dama laa toppatoo man nga naan ma nangam nangam ak man dama laa dund man man dama génn dugal dugal dugal dugal dugal mhm, mhm. dugal dugal dugal dugal dugal am nañu ndog gaañ. càccee. doo bandi la génn doo bandi. càccee.